dama ko dégg ci mbirum eurobond yi yéen ñëpp gis ngeen vidéo président Boubacar kamara même su dee je pense que gis nañ ko ba muy ñaawlu eurobond te muy borom xam-xam bu ñu naw wax eurobond bokk na ci façon leb yu gën a bon yu gën a yu goo xamante ne état sa waru ko jege bañ jëlee ñoom seen eurobond bi sénégalais yëpp yi nga xamante dañ leen doon gis ñuy wax la dette sénégalais yooyu dañ leen ne mais yéen eurobond bii ak taux yi ngeen ko jëlee mais c'est catastrophique moom mu dem grand théâtre mu ne da ngeen a xamul lu bëri parce que dafa am autorisation d'emprunt boo xamante ne assemblée nationale def na ko ci budget bi moo tax ñun ñu am possibilité de wuti eurobond xolal ma question ba ak réponse ba yàlla ak yaali autorisation d'emprunt. Mais directive de l'UEMOA, relative aux lois des finances, il faut voir son inscription obligatoire dans la première partie du projet de loi des finances. Autorisation d'emprunt. Madame, si nous avons les ressources, nous avons autorisé mu dem loi de finances waxuñu la bu lepp dañ la ne pourquoi eurobon yow tontu woo pourquoi eurobon nga ne non dañ maa wax naa leb tey fii may wax ak ñeem lu ñu lebagum fi ñetti weer yi defar na TER defar na BRT nga boole leen quand on parle de 1150 milliards am nga si TER am si BRT te seen wax yépp moo doon lèb bi dafa bëri lèb bi dafa bëri il faut que sénégalais yi ñu xam loolu